li nga xamante ne mooy mooy république mhm. parce que tey man mënuma comprendre président toog di wax mhm. famille am ñëw toog ci wetam loolu royaume la nekkatul république république reconnaître benn famille ni mu fi indee famille am ba am kenn koo xamante ne koy étouffer peut-être aussi daf feebar donc dama koy dama ko koy accordel mais ñeneen ñi daal je crois que war nañu mën a bañ a jaawale royaume ak république chat si image yi ak euh, vidéo bi mhm. dafa jéggi dayoo ci réew mi dafa boo xam ne dafay tendre la main am commission boo xam ne manchot la bi tendre la main peut-être mooy bi ñuy gis ñun ci mbedd mi manchot bi nag mooy bi ñu gisul loxo bi waaye booboo gën a yéesati kon corruption moom pour xeex ko du yomb il faut que ñëpp def ci détermination. Mm-hmm. et loolu moom moo koy réglé. Mm-hmm. image bi moom gisuma ci dara la dul arrogance ak def lu la neex ñëpp toog wër la sol masque yoo nga ne solo masque ñàngal fas say kanam et tout et puis wax nañ ko famille présidentielle lu muy def ci discours président fii presse bi moo fi waroon toog. fallait inviter beaucoup plus de journalistes mu am beaucoup plus de diversité doon leen plus beaucoup plus de temps question yi gën nañoo bëri mais def du théâtre au palais comme ay jamonoy toj daa jamonoy nu mu tudoon daaree kocc wala jamonoy tey <laughs> professeur li ma ciy wax mooy déjà bu fekkoon dañoo nekk ci état de droit li may wooy état de droit mooy ñëpp yam ci yoon kii dañ ko war a génne salle bi n'est-ce le fils du président de la république donc mi ngi nii ñëpp gis nañ ko alors que man tey su ma ko defoon wala keneen def ko nekkoon ci ndaje def lii dañuy ñëw pamti pamtee la yóbbu la ah, ñaar moo mën a am moo foofu laay ñëw merci beaucoup foofu laay ñëw y a deux choses ou bien il va montrer aux Sénégalais que man je suis le fils du président comme au Sénégal les fils de président ont été souvent gâtés à l'exception de Abdou Diouf de Senghor ñoom lu leen neex lañ daan def ci réew mi damay def lu ma neex wa moo ma ci jaaxal bu fekkee nag ne il est malade ba mënut a sol masque na xam ni moom mi nga xam ne bàyyi am ay milliards mu am les maire mercin di lekk li ko neex moo mën a feebar waxuma laat suñ doom yi nekk ci école yi. ba ñu fattak seeni masque nit ñi mënuñoo masque wa à deux heures de temps. mënuñu ko doomu Macky Sall la ñu ni masque wul. alors qu'il a toutes les ñu bëgg ñu wu fu ñuy solee masque. professeur nag il faut il faut ñu sol masque nag. professeur professeur il faut ñu sol masque. ma pensée waxuma bu ñu sol masque mais dama ne je parle ci école bi cours deux heures de temps la deux heures de temps nit munu koo sol masque la preuve ki mi ngi nii def na ko munu ko le ministre de l'enseignement supérieur def na ko Sarkozy xaw ma nu mu tudd président France def na ko en direct dindi ko kon bu ñu obligé policiers yi may ma tuuti rek gis nga nen ne policiers yi bu ñu gisee lii mhm. war nañoo mun a am un peu d'humanité wa xam nañ ne état police RTS ak Soleil nguur gu ñëw yaa leen di moom mais bu ñu gisee lii war nañ xam ne war ñoo dajeek nit ci mbedd mi rek solul masque rek ñu commencé di ko pamti pamte di ko ramasse mais nañ dem jël doomi Macky yóbbu ko encore que les droits de l'homme on devrait même porter plainte contre lui parce que ñi fi nekk loolu moom la vidéo loolu euh, ci ci masque bi man démb ci rond point Sandaga bi dama gis policier taxawal ñaari xale yu jigéen. vraiment di leen teg pression ba xale yi boo moytul nee naa dana dana saw seen tànk parce que dañoo takkul seen masque mu leen di teg pression xale jigéen ni ko jéggal ñu parce que bon ñun euh, tey yoruñu masque mais dañuy takk masque et naxante pour génn ci mu téye leen fa bon man dama jàpp ni euh, réew ñëpp danoo war a yem lii euh, lii mon ami si wax mooy dëgg bu fekkente ne mën nañoo wane doomu président de la république mu nekk ci contexte bu amee nii euh, solennité au moins ñu mën faa jàngale ne port du masque bi am na njariñ moom mu am droit parce que doomu njiitu réew la parce que nee nañ bu fekkente ni dafa am feebar bu mu yore mais jarul woon muy feeñ parce que comme ni ñu ko waxee famille ba sax jarul woon ñuy feeñ d'abord amul woon importance fait quoi parce que moom chef de l'État lañ soxla donc il ne faut pas en Afrique ñuy mélanger les rôles loolu moo taxoon sax man ay jamono moom mi euh, madame la présidente euh, première dame bi mu nekkee di jéem a négocier ak ay syndicat ma ne loolu du rôlam parce que protocole de Mermoz bi loolu moo ko andi parce que ay syndicat dem toog ak moom di négocier mu yore téléphone am di woo président de la république naan ko defal nii defal naa ak waxal nii waxal naa man jàpp naa ne loolu rafetul ci sunu taarixu réew loolu laa gëm d'accord donc maintenant pour euh, niveau de corruption bi nag xam nga Sénégal moom wax dëgg yàlla bu ñu demee ba nga xam ne euh, ay rapport am na parce que bu ñu jël ñu sàcc ginaar ñu bàyyi leen ñu yàgg ci prison yi ñeneen ñi nga xam def nañu rëy ñu fàtte leen mooy li Pamata doon wax bu demee ba réew ay rapport yoo xam bu ñu ko dajalee woon tey mu nekk des milliers de milliards yu ay nit sàcc na ci dëkk bi président de la république làq leen parce que moom lañ àndal wala xoqatal na leen parce que réew mi xupp moo fi am wala xëpp ak xëpp. donc man jàpp naa ni kon corruption ba bu élevé c'est normal parce que mais bu ñu jaarale woon ñëpp yoon corruption bi day wàcc mais bu ñu xamee ne am na ñu nu làq. boot leen seen digg ginnaaw ñu def ñu bàyyi leen ñu tete ak di leen duma ak leen jaay doole kon jàpp naa ne réew moom mun ñoo jël ñi nga xam ñi ngi def ay corruption mineures yi. Mhm. amul benn corruption sax bu ñàkk fayda ba noppi teg fi ñi nga ay milliards lañ sàcc ñu làq leen. alors euh, vidéo bi wax na ko gisuñu ay faux euh, sapeur pompier faux policier lañ fi gis euh, faux douanier ak ay faux gendarme justement peut-être revenir ci vidéo bi Omar Faye très rapidement yow ak Cheikh Omar. corruption dans niveau moom ci nii cest à dëkk bi moo am anarchie anarchie bi moo ëpp ba nga xamante ni lu bëri mënut ko comprendre donc il faut ñu jéem a xool nan nañ koy rebâtir nan la ñuy réorganiser waatee suñu réew. te loolu c'est à un niveau supérieur c'est pas ces gens-là c'est à un niveau très supérieur. te loolu il faut que gars yi lijjanti ko réew mi li fi yàqu dafa bëri bëri waaye boo xamante ni ñi ñi mënaguñ ci rendre compte sax mais buñ demee ba ci kanam lañ ci rendre compte. parce que euh, euh, aussi boo gisee ñenn ñi def ñu ñu accepter yenn yenn corruption passive yi mais comment tu peux concevoir aujourd'hui que nga am un ambassadeur itinérant di ko fay un million et quelque jël jabaram di ko fay cinq cent mille francs alors que celui qui est là qui travaille n'a même pas deux cent mille francs léegi yaa ngi def couvre-feu policiers yi boo defal nank ci couvre-feu bi cinq mille francs nga leen di fay wala deux mille francs n'est-ce pas PS may wax un professeur d'enseignement secondaire bu def trente ans de service buy dem retraite du am 500000. masque bi très rapidement. image masque bi du waxuma masque bi mais man je pose la question à à Idriss Seck et à Gadio ñii ñëwoon ñu théoriser ñu ñëpp ñu àndandoo parle de de de dévolution monarchique du pouvoir. quelle sera ñoom leur position bu ñu gisee lii tey on est de la démolition monarchique pour aller vers une dynastie cette dynastie est là maintenant nous il faut constant. ñun peuple bi. très bien alors euh, mhm. mu génnee dafa fàttali benn wooyu Alpha Blondy mu naan monsieur le président. vous voulez combattre la corruption combattez d'abord la misère. et tant que ñi nga teg ci mbedd mi yaa ngi leen di jox traitement bu misérable noonu lay demee beneen bi seen une maladie sociétale parce que corruption fu mu am dafa am le corrupteur et le corrompu mais ñun Sénégal même boo ñëwee ci mairie sax pour yow. loo joxe pour nga am benn service il faut nga joxe dara wala nga ne euh, loxoy kajoor de weesaloo donc dafa dem ba bokk ci pratique ñu accepté mais la grande corruption virus bi ñu fiy coowee coronavirus sonal Sénégal am la mooy sonal hmm. virus su mal gouvernance virus su pillage de nos ressources beneen bi sur euh, l'image Euh, ma j'aime pas trop sax di wax ci ay doomu président et cetera parce que man ki ñu fal te mu intéressé mooy le président de la république moom moo waroon protéger sa famille. mais bu mu leen jaaxal comme jël na goroom jox ko 1000 milliards ne ko séddaleel yëkkatiwaat goroom. moitié budget Sénégal infrastructure yi yëpp mu jox ko sa régie bi ñu ngi bàyyi ba may wax ni si dugal Ndoumbelane mais man comme doomu gaynde laa Pikine laa ñibbi merci. très bien merci di leen remercier bu baax a baax. dafa dafa euh, nga wax ci grève enseignant yaa ngi grève chaque semaine ñu perte ci quatre heures de temps huit heures de temps ne pat. bu ñu demee ba mu jeex nag ñu naan ñu il faut sauver l'année il faut sauver l'année il faut sauver l'année. waaw ñu ngi dem beneen débat ci ci mouvement chômeur yi très bien message bi jàll na professeur dañ leen ko fay dañ leen ko fay donc di leen di leen remercier chers téléspectateurs euh, ci euh, de votre fidélité euh, di remercier également bijouterie bi nekk fii ci devant liberté si bijouterie de l'islam Sen Gold donc di ci remercier Amadou Bilal Niang Mass Modou Silla